ci seen télévision régionale Prestige TV ñu dital leen li fi jot ruus ci xibaar lu metti moo am ci cité Senghor ab sorado buñ doon tabax ca jàkkay murit bu cité Senghor 1 moo daal di daanu démb ci taw bi ba fat fa bakkanu ñaari nit amit juróom-ñaar ci am ay gaañu gaañu yu méttee métti ba sapeur yi daal di leen di yóbbu ca l'hôpital sous-préfet bu commune bu Thiès Est gannaaw ba mu déggee jéye ji daal dinay teew mu Youssouf Faye daal dinay joxañ itam baaraam di wax ne nag euh, di wane lamu mu fa jot nemmeeku campagne législative yu yi bari lool ay coow ci wàllum violence ñu nemmeeku ci caravane yi gannaaw Guédiawaye Thiès Kaolack Bounkiling desul gannaaw ndax foofee itam gis nañ fa ay violence xibaaru biir réew mi xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ñooy ndaal képp suñu xibaaru tay les tuuti ñu faram-fàcceel asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan Prestige TV egsi nañu ci xibaaru marax yi dañ leen daal di tegtal di fi jot a ruus ci ay xibaar dañ koy door ak jëwriñ ñu dénk wàllum wérgu yaram dikkaat na ci tolluwaay mbas mi ci bésub tey ji yemook àllarba ñaar fukki fan euh, ci weeru juillet atum ñaari junni ak ñaar fukk ak dañ nañ ci def 949 test ci ñooñee nag fanweer ak juróom ñaari ñoo ci amee mbas mi di coronavirus benn bi di ka contact maanaam kookee dañu ko ko wàll am ci benn cas important rapporté kookee da ko fay indi fanweer ak juróomi di ay kaa communautaire ñooñee ñi leen ko wàll kenn xamu ko bisub tey jii am na ci ñaar fukk ak juróom ñett yu ci daal di wér ba daal di ñibbi seeni kër amul kenn ku ci sauvetage amul kenn ku nekk ci sauvetage bisub démb amul woon kenn ku ca ñàkk bakkanam lu metti moo am ca cité Senghor ab sorol buñ doon tabax ca jàkkay murit bu cité Senghor 1 moo daal di daanu ba fat fa bakkanu ñaari nit amit juróom-ñaar yu ca am ay gaañu gaañu yu metti ba sapeur pompier daal di leen di yóbbu ca l'hôpital maire bu Thiès Est teewoon na fa ngir xool jëye ja na mu mel moom it mu ngay joxoñ baaraam ni ay jumtukaay yuñ tabaxee boobee sorol moo baaxul ba sax daal dina ci ubbi ab l'enquête monsieur Ousmane Dia Diagne mu ngi woon ci micro prestige. ñu ngi ñëw ànd ak le maire de la ville ñu ñëw fekk fi notre grand frère suñu nijaay le maire Pape Bassirou Diop euh, fekk fi ñoom préfet sapeur pompier yëpp parce que taw bi ñu doon xaar jamono ji yëpp mu nit ñi doon ko xaar mu waroon a nekk moment boo xamante ni moment wu bonheur la finalement dafa ànd ak métit bu mu indaalee parce que ci jumaa ji euh, soroor bi nga xam ne dañ ko doon def tabax soroor bi dafa daanu ci kaw sëriñ bi doon jàngale ci jumaa ji ak ndongo yi nga xamante ni xale yi nga xam ne ñoom la doon jàngal alxuraan mu nekk suñu frère Habib Sougou donc mu amoon huit blessés graves mais adjoint au bi nekk hôpital mu ngi may informé ni ma finalement suñu xarit boobu sëñ Habib Sougou ak euh, doomam bu jigéen bi nga xamante ni nii moom moom la du sëggoon ci kawam di ko jéem a protéger finalement suñu borom daf leen moom mu nekk loo xamante ni nii du lu metti la parce que sëñ abi ku ko xam rek alxuraan nga ko xamee noonu la dundee te noonu la génnee àdduna bi muy génn àdduna mu ngi nekkoon di jàngal ay alxuraan ay xale donc ñu koy masawu famille am di ko jaalee famille am euh, incha allah ñu dem léegi ànd ak le maire de la ville dem fële à l'hôpital pour jéem xool nan la ñuy mën a soutenir famille yi fa nekk parce que li leen dal nii lu lu metti la surtout que mu dal ay xale xam nga xale moom dafa fragile lu dal moom rek dafay metti donc nu maire bi dina jël disposition yëpp incha allah pour ñu bu ñu demee hôpital ñu xool fépp foo xam ne rek mën nañ fa jàpp soutenir famille yi toppatoo lañ bañ génn ci jàmm incha allah rabi dinañ sapeur pompier bu 21e compagnie bu Thiès ñoom it defoon nañu seen liggéey daal di évacuer ña fa am si ay gaañu gaañu ñu teewlu ci capitaine Khoudia Iba Mar moom it nekk commandante bu compagnie ba mu ngi woone ci micro prestige. tey euh, bi ñuy waaja a noddu timis ay 19h dañ ñu woo nañu benn minaret dafa daanu ci cité Senghor. bi ñu yëgsee aussi exactement loolu lañ fi fekk bon avant ñuy agsi aussi am na ay ay blessés yuñ yuñ yuñ jot a évacué avant notre arrivée certes mais bi ñu ñëwee aussi fekk nañ fi ay blessés yoo xamante ne ni suñu ambulance yi ñoo leen évacué y des blessés graves et aussi des blessés légers euh, pour def liggéey bi tamit ñëw nañ ak suñu matériel yu bëri yu ñu am surtout avec le véhicule de secours routier bi nga xamante ne nii euh, am na matériel yi yi nga xamante ne ni ñoo gën a xarañ pour def tout ce qui est travail de démolition wala wala wala nu mu tudd désencarcération wala wala lu jëm ci effondrement donc ñëw nañ ak fourgon bi aussi ñëw nañ ak suñu véhicule ak ak euh, ambulance donc tout le matériel bi nga xamante ne nii pompiers yi disposé nañ ko on l'a amené sur les lieux pour vraiment euh, wattu population bi nga xamante ne ñoo nekkoon si jéeya su préfet bu commune bu Thiès Est gannaaw ba mu déggee euh, jëye jë moom it teewoon na fa mu Youssouf Faye daal dina joxe ay kàddu yu njukk ci lam fa jot a gis ñu teewlu ko ci micro moom it prestige. li may njëkk a mooy ñu ngi koy métti parce que sunu njaboot lañ xale yi sunu njaboot lañ rawatina dañu doon jàng. lu ñu doon def defe naa bokk na ci lu gën. ci li nit di def mooy jàng alxuraan. Mm-hmm. Euh, yàlla def nag nee nañ ma bi muy taw. xëy na côté bële sax lañ doon nekk. mais bi muy taw ñu puus oto bi xëy ne yàlla lii la namoon ci ñoom euh, bi ñu ñëwee ba commencé jàng ci la kii bi fell munaare bi euh, ñu sant yàlla sax ba parce que dafa am lu ci lu ci lu ci ci daanu rek du lépp ñu sant ci yàlla parce que xëy na mënoon na fi gën a métti mais yàlla sutural ñu ba am na lu ci lu ci daanu rek moo moo nag daanu seen kaw laal xale yi ak tamit ñi leen doon jàngal ba nemmeeku nañ ne tamit gaañ-gaañ yi xaw na métti lool pour le moment loolu la ñuy loolu la ñu amagum comme information mu nekk nii dinañ jéem a sécuriser euh, mosquée bi def ci ay balises après ñu seet avec rapport euh, sapeur ñu seet yan matuwaay lañu ñu war a jël pour que lii bañ a amati. Euh, yi lan am ngeen waaw xale yi officiellement nee nañ am na ay gaañu gaañu yu métti. am nga information tamit dangay ngay jox bi nga xamante ne moo gën a fës. Eh, bu fekkee am na yeneen cas nag bu ñu demee hôpital maintenant d'une manière définitive dinañ mën a wax euh, naka la tëddee exactement ñan ñoo ciy gaañu ak bu fekkee am na yeneen cas yu ñu ñaanu tamit dinañ ko mën xam. desandi ba tey ci jëye ja ama ca cité Senghor ab tiis bu metti loolee nag ña dëkkee ca carte ya daal dañ fay yëkkati ay kàddu kii di ab jàngalekat moom it daal dina ci indi ay seede ñu teewlu ko. bon en euh, kàddu naqar. parce que li dal Cité sengoor dal Thiès. dal famille suñu famille la daal parce que suñu xale lañu woon. nekkoon ci fii doon jàng. donc vraiment lu metti la. et soo gisee mobilisation bi am. muy autorité fii nekk yëpp jaar nañ fi. donc Paal Sana ngi le maire Pape Diop Sayer Mangane muy suñu frère ñu ànd. mu jógee ba Darou Salaam. daf ko yor rek daw ñëw. day wane ne Cité Senghor ak Darou Salaam benn la. lu frappé benn koñ day frappé ñëpp. aujourd'hui comme ni ñu gis rek. vraiment li fi am daanaka Cité Senghor yëpp benn lañu lu dal benn xale day dal xale yi Cité Senghor yëpp lu dal benn famille day dal ci famille yëpp kon li dal tey Cité Senghor métti na mais ñun ñëpp dañuy gëm yàlla xam ni ndogal yàlla nii la demee donc suñu borom lu mu nam rek da koy def mais lu métti la wax dëgg si yàlla en tout cas di masawu famille yi bu baax a baax wane ni li dal famille yooyu ñun ñëpp la dal ndari ñëw ci campagne législative yu mille 2022 yi mu commencé bari lool ay coow jëmale ci wàllum violence gannaaw bañ dee def seeni ay caravane bu ñu nemmeeku Géejawaay Thiès Kaolack ak Bounkiling foofe yëpp daal dinañ fay nemmeeku ay violence ana ñan ñoo ko daal di indi muy politiciens yi wala militants yi reportage Isaac Dapa li nga xam ni rek moo di élection législative war a tàmbali ci fanweer ak benn ci weerub juillet tàmbali na di am ay yëngu-yëngu yi am na yi nga xam ni nag jot nañ ko bàyyi xel fii nii rek ci Thiès ñu am ñi nga xam ne jot nañ la ci laajte li ñu xamal rek mooy que ni coo gi ànd yi dafa yàgg te dem na ba doon sax ab aada. waaw gis-gis bi ma ci am mooy euh, violence bi du léegi yàgg na du léegi yàgg na day gën a exploser ci kanam ndax euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee kilifa entre guillemets xaw ma ba xam kilifa lañ wala duñ kilifa mais entre guillemets. dafa mel ni matuñu lañ war a doon parce que yi ñuy jalgati ak yi ñuy amerde nit ñi dafa bari yu ndaw yoo xam ni yu baree bari yoo xam ni kenn xamu kenn mënu koo xayma ba nga xam ni dafay poser révolte yu ndaw dans les cœurs révolte yooyu mooy exprimer wu il faut ñu gën a respecter nit ñi gën a respecter réew mi pour que nit ñi gën a dem muy opposition mooy pouvoir ñëpp ci yem il faut ñu gën a muy nit ñi tamit la population il faut que ñuy gën a respecté di gën a respecté nit ñi di gën a respecté li ñu war a def ci réew mi ak li ñu war a def ak yoon yi ñu war a teg ak yi ñu war a ngir moom nag waxambaane yi duñ ci dara ñu ngi xam ni rek ñoo di njiital politiciens yi ñoom rek ñoom ñoo nekk di bu xale yi di leen def loolu lépp lépp lu ci bon rek ci ñoom la jóge dem nañ bay accuser xale yi du xale yi mag ñi la parce que mag ñi ñoo yor idée yoo xam ni en général ñoo koy xaw a dérouler ci waxtaan ci ay kii mu indi ay problème prise de conscience war na am ci xale yi mais ñi leen di yar suñu amul prise de conscience nu muy demee ci xale yi ñi leen di yar il faut que ñu defal seen bopp problème bi du problème bu tuuti de du problème bu tuuti problème bu rëy rëy la ñu koy négliger nag te xamuñu fu muy yem. ngir ñeneen ñi nag moom. li waral a coow li rek mooy que ni ñi nga xam ne ñoo di njiitala politiciens yi tëral lañu rek seen programme ci lu leer ci noonu nag ay yëngu-yëngu mënta ñàkk. waaw li ma gis ci violence électorale bi pour man c'est c'est tout à fait euh, évident dans la mesure où benn can candidat déclinéwul programme am nit ñi dañuy wax rek na fi mag yi mag yi jógee fal leen ma bu ngeen et cetera alors donc il n'y a pas de ligne de programme xale yi li ñuy utiliser pour pour pour pour violence bi donc ñoom war nañ ko moytu ah war nañ ko mën parce que les les leaders là effectivement ils n'envoient pas du ñu yóbbante seen seen doom yi seen doom yi bokkuñu ci programme seen doom yi ñu ngi jàngee dans les universités européennes américaines alors que baadoole yi ñoo nekk fii di sànni xee di toj oto nit ñi di toj këru jàmbur yi loolu c'est pas du tout normal normalul dara. bañ ko laajee nag ci li nga xam ne rek moo di wàllum ndaw li ci coow li moom lii la tontu. en tout cas moi j'ai peur dama ragal Sénégal on a Sénégal defe naa ne euh, aventure vers on, on verse dans dans yi am ci yeneen dëkk yi damay ragal ne buñ deful ndànk xoole rek euh, dëkk yi ñu wër ay Guinée Bissau Guinée Conakry Mali et cetera mais c' est l' instabilité ah kenn nekkul ci jàmm te loolu lii li ñuy wax olof lii ci ñag bi la jëm bu ñu deful ndànk euh, dana fi agsi malgré malgré euh, kilifa diine yi kilifa aada yi personnalité yi tànk yuñ ñu jóg pour dox càmm mais buñ deful nànk rek euh, yooyu mën na fee jur ay ay musiba yu doy waar. li des rek ngir ñu egg ci fanweeri fan benn ci weerub julie ngir élection législative yi nag la wante rek ñu tàmbali di gis coow lu bëri li wante ba léegi mën nañoo yaakaar ni coow li fii lay yem te du gën a mën a doy waar. jërë ngeen jëf egsi nañu ci xibaaru biir réew mi ca UGB foofe nag daal di nañu dakkal jàng meeg jàngale bi ba ñetti fan ci weeru octobre xibaaru biir réew mi ak soxna Adji Aram ñu door xibaar biir réew mi ak jëwriñ bi ñu denk force armée di Sidiki Kaba ma nga doon inauguré àllarba bii ñu weesu ay tabax yu bees jëm ci wàlluma njàngale ñi nga xam ne ñoo di école nationale des officiers actifs ñu gën ko xam ci ENOA bu Thiès tabax yu bees yooyu nag ma ngi ko doon euh, inauguré gannaaw ba ñu doon sargal ñeent fukkeelu promotion wu Enowa te ñu tuddee ko ki nga xam ni moom moo di capitaine Ibrahima Diédhiou ci teewaayu autorité militaire yépp ci loolee moom maître Sidiki Kaba daal dinay xam ne ni dinañu dalal ay tabax yu yees jëm ci wàllu tàggat yaram ak ay dëkkuwaay bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci yëngu-yëngu yi am ci université Gaston Berger gannaaw ba ko coordination étudiants yi xamalee jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci biir université ba moom directeur bu CROUS daal dinay jël ab ndogal di di leen dakkal lépp luy jàng ca université ba lu ko dalee àllarba bi ñu weesu yemoo ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi jàpp altine yemook ñetteeli fan ci weeru octobre moom moomee jàpp na ni ndogal boobu mooy li gën ngir ñu mën a xam nan la ñuy saafaraalee jafe-jafe yooyee étudiants yi di jànkonteel ñu jeexal ak kii nga xam ni moo di njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba mu jugee ci ab sommet daal dinay dem fa nga xam ne moo di Soudan du Sud ngir daje fa ak ak mbokk njiitu réewam bii di Salva ñoom ñaari président yooyu nag li ñu bëgg moo di gën a dëgëral diggante ñaari réew yooyu ndax gis nañ ni ci loolee ki nga xam ni moo di njiitu réew mi Macky nee na dafay jàppale moo di président Salva Kiir njiitu réewu Soudan ci jafe-jafe yi nga xamante ni dëkk mi ngi koy jànkonteel loolo fi wàccoon ci xibaar yi ñeel bi jërëjëf soxna Adji Aram Seck xibaaru biti réew soxna Ramatoulaye Cissé moo ñu koy faram-fàcceel. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ca république démocratique bu Congo commission électorale nationale indépendante ñu gën koo xam ci yi bi nga xamante ne moo yore wàllum élection foofee ca réew ma république démocratique bu Congo daal dina mbébét ngir daal di organiser élection boo xamante ne waa jaspora yi dinañ ci bokk ñu fàttali na rek waa jaspora diaspora ñu bokk ci élection yi li waraloon loolu mooy ñàkk matériel bi nga xamante ne moom moo leen di permettre pour ñu daal di mën a bokk ci vote bi centrale électorale congolaise bi nag daal dina décider daal di commencer ak juróomi réew yoo xamante ne ñoo ngi ci biir Europe ak tamit ci Amérique li waral loolu ba tey mooy ñàkku logistique bi Afrique du Sud tamit daal nañ ko lim ci réew yi CEDEAO daal dina yabal président Bénin ba woon di Thomas Boni yi ngir mu nekk médiateur ci lu soxal wàllu transition wu réew ma Guinée moom nag mu ngi foofee ci Conakry depuis ci mardi bi yemook si fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet médiation woon boobee nag li ko waral du lenn lu dul daal di saafoon teg autorité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci transition bi ngir ñu daal di mën a taxawal ab calendrier électoral boo xamante ne dina mën a permettre nit ñi daal di mën a voter ba nga xamante ne réewum Guinée du bokk ci sanction yi nga xamante ne waa CEDEAO ñoo ngi koy def réew yi. mu Togo daal dina nangu ngir daal di dimbali réewum Mali ngir mu daal di régler problème am yi nga xamante ne moom la am ak Abidjan problème ba nag ñuy fàttali na rek li ko waraloon mooy ñeent fukki militaires yeeg juróom-ñeent xamante ne réewum Mali dañ ko jàppoon foofee aéroport bu capitale ba. militaire yooyee nag dañ leen tuumaloon ne ay mercenaires lañ waaye waa Côte d'Ivoire mu ngi ñaan ngir ñu daal di libérer militaire yooyee ci ni mu gën a gaawee ñoo ngi le rek sax que ni. réewum Mali ñoo na xam ne militaire yooyee dañoo bokkoon ci opération bii ñu tuddee MINUSMA mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew jërëjëf soxna Ramatoulaye Cissé xibaaru tàggat yaram nañu ndar keppee sunuy xibaar ñu yër la ci gën a fees ñu doore xibaaru tàggat yaram ak CAN féminine bu 2022 bi Afrique du Sud daal dinay qualifié ci finalu Coupe d'Afrique des nation bi gannaaw ba mu doon jongante ak Zambie ba daal di koy dóor benn bal ci dara match boobee nag mu ngi amoon altine bi weesu yemoon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu nekk ca Casablanca ñoom nag waa Afrique du Sud danañu janoo ci seen final bi ak waa Maroc ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñu nekk. ñu teg ci joueur bi gën a xarañ ci at mi daal dinañuy xam finalist ya loolee nag bu nekk CAF Award ñu war koo amalee ca Rabat nekk ca Maroc ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet gi ñu nekk bu ñaa fukki waxtu uh, ci guddi jotee nekk heure locale ñuy xam le ni nag CAF Award daal dina tànn ñetti footballkat yi gën a xarañ uh, ci góor ñi ak ñetti footballkat yi gën a xarañ ci jigéen ñi ngir daal leen di ñu yóbbu ñu dem jongante ji. ñu jeexalee ak athlétisme championnat national 2022 bi dinañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ca jam ñaajo fédération sénégalaise d'athlétisme bi ñoom ñoo ko daal di biral ni nag saison bi ñu ngi koy tëjee fële ca stade maître Abdoulaye Wade bu cam ñaajo bile yoon mu nekk ñaareel bi yoon ñu fay organiser ay événement ci biir stade bu yees boobee mbokk yi loolee moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci ay xibaar waaye it mën ngeen wéy di seetaan suñuy xibaar ci www.prestige.com ngeen am jàmm ñuy am jàmm suñu am jàmm jërë ngeen